ba tey gis nga ñi ngi euh, tablo xaadim jàmm gën si kàmbaaw ñu taxaw nag euh, ki nga xam ne mooy Siteu genn wàllu Siteu di caatu fooraat di mbër mu mag moo xamante ni kenn dootu ko présenté ci réew mi caat ñu ngi lay nuyu. waaw maa lay fay si loo nekk mbaa lépp jaam. caat sa doomi ndey Siteu di waaj combat boo xam ne diggante moom ak Papa Sow la nan ngeen koy waajee. ak dara bisimilah aouzu billahi mina sheytaani rajiim ginnaaw bañ sant yàlla ñu ngi julli ci yonent bi sant suñu ñaari ah, yéen à travers seen site bi quoi nuyu Youssou suñu xarit yow aussi noonu ak kii caméra di wax waaw ñu ngi ci wàccaay rek li ñu waaj moom ay ñetti at ba ñeenti at moom ku parewul dootoo pare di quoi. gis nañ ngeen dem jox di dëkku Siteu waajee def euh, li nga xam ne moo di open press lan moo waral lool waaw dara loolu staff bi la rek encadrement bi ñoom ñoo waxtaan ba xam ne Siteu instant bi dafa war a dem dugg regroupement dem loolu fenn toog waaw mën a préparer combat bi mentalement. ak moralement quoi. Euh, soo waxee mentalement ak moralement lan moo wutee yeneen combat cité ak combat bi lan mooy seen différence. non yëpp benn la combat la mais xam nga li naan des fois moom li ñu naan xar day weesu mbote quoi des fois da ngay am ni da ngay da dimension boo xamante ne yow yaay jéem a innové xëy na si ne saa dafa toll ci phase boo xamante ne dafa laaj moom mu génn fii. nekk fenn fu muy stable xelam gën a tranquille mu gën a mën xelam nekk ci làmb ji mu gën a mën a préparer quoi par rapport ak fii fii nag mooy lépp mais xama rek fii moom xamal làmb dafa métti te wàccaay dafa métti ba pare koñ bi dafa xat moo tax day bëgg moom wéet fenn fu muy nekk waa di entraîner am temps de récupération bu ñu bëgg si moom ko làmb ji nii Siteu kat moo koy njugal ndax ñi naan jili dina ñëw wala du ñëw yow moom loo ci wax lu ne rek exclusivité ah, damaa xamul nag nu muy demee mais jili incha allah day ñëw te loolu lañ bëgg te looloo yam jili gars yi ñu ko de xëy na dañuy jaawale lu bokkul booy bi tuuse sabar bi kooku la CNG aj mais jili kenn aju ko incha allah dina ñëw bu soobee yàlla nuñ ko bëggee rek ñun ñu defee ko noonu. tey soo xoolee Siteu entraînement bi mu yor physique bi mu yor ak par rapport ak yeneen combat mi ban nga koy gën a gis di gën a bég mu lay wane sa mbër liggéey na. waaw moom chaque combat démb Bécaye mi ngi koy wax Siteu chaque day day changé. te loolu mooy sportif athlète saa su ne boo jugee ci niveau bi da nga war a dem ci beneen niveau loolu mooy au niveau professionnel quoi mais athlète du reste benn taille rek wala benn poids dangay ngay changer di changer chaque période ak li sa yaram di laaj ak chaque combat ak li may laaj ak chaque combat li ngay bëgg ci sa yaram. soo xoolee fii di nga fa gis euh, côté Papa Sow ay Modou Lo ay yenn mbër yoo xam ne mbër yu am gabari la mais soo xoolee Siteu Euh, ñee dañ leen a xaw a ëpp doole ci wàllu gabarit contact bi nga xam ne Siteu mi ngi koy contact fii ak fële lan mooy seen différence est-ce que du leen du ko xaw a pénaliser benn côté. non non loolu mënu koo pénaliser ay gabarit bëre du ay gabarit contact chargé la xale bu ndaw sax mën na laa may contact parce que liñ soxla ci contact mooy cardio xol bu nangu nga bëree tant de minutes doo sonn say muscle du chargé loolu mooy contact contact du ay ngane ñaari pongal bu ñu taxee duñ contact dañuy buuxante. dañuy taxaw di buuxoon yooyu seen xol lu tax mais ngay bëri xale bu ndaw mu lay curuxu curuxu di song di bëri ak yow fu nekk loolu mooy tàngal sa xol te sportif loolu la soxla waaw si day contact ak dàq bëri ñi ngi fi wax ñi ñëpp ndax ay champion d'Afrique lay contact mi ngi ba Jonouar di bëri ay boy yoo xamante ne amul fuñ demalul Sénégal bokk ci équipe nationale lutte simple bi kon kooku noonu bëre jaaxalu ko moom rek dafa yor ba feesal kon bu demee jëliwaat leneen yokku si day gën a neex rek. kon ñu waxee ci beneen phase bi mooy wàllum violence saa yu combat si ta amee ñuy ñuy xool violence bi dafay ëpp doole mbooloo mi koy topp day ëpp doole ren est-ce que pare ngeen pour làmb ji bépp doomu Diamaguène si Kambaaw ñu sensibiliser ba violation du fi am est que yéen a ngi veillé si loolu bu baax a baax en tant que lutteur en tant que nit boo xamante ni porteur de voix nga. waaw mooy li nga wax rek ñun moom non violence lañ xam xamal lañ naan àdduna moom ku boot bukki xaj mboola la. Siteu mooy moom la yàlla defal loo xamante ne yombul ci mbër xam nga ki ki kan xam nga kan moo neex a lijjanti ñun dañuy wax ba sonn mais xam nga ñan ñoo neex a lijjanti boo ñëwee ci marché jënd benn da ngay neex a waxtaan ak mais boo ñëwee di wax saam ñaata doo gaaw a jënd Siteu nag nit boobu la bu génnee ñëpp génn mbooloo ku ne ak sa état d'esprit fu mu toll ku ne ak li la ñor ku ne ak li la yëkkati am na ñoo xamante ne Siteu rek moo leen ñor xamuñ lu bon duñ def lu bon. dañuy ñëw ba estar accompagner seen mbër am ñoo xamante ne nag ay defkatu lu bon lañ dëkkuñu jàmm gën dëkkuñu sikaab dëkkuñu faas mbaaw dëkkuñu pikin dëkkuñu fenn dañuy wër rek lépp lu xew ñu ñëw rax gaay nekk seen biir du def naka sudul noonu ñun nag doxuñ si yooyu ñun ñi di ànd ñëpp benn la ñun mosoo dégg commencé de jarañu jàpp si ñun kenn mosoo gis ñu jàpp suñu rax si ñun kenn kon nga xam ne ñun li ñuy wax li ni ñi di def duñ ñoon ñoo koy def du suñuy rax koy def ay jàmbura étranger yi jóge feneen ñoom ñoo koy def waaw nga la waay di wax rek ku ci nekk boo ñëwee nga xool nu mu rafetee nga defee ko noonu parce que ñun ñëpp benn lañ te tamit xam rek dëkk bi demeewul noonu waaw nañ masala naxanteeg nit ñi xam ne boo fi nekkee def na ko su dul wala di jël alalu jàmbur sonaloo kenn sa bopp ngay sonal gis nga nit mënoo ji suukar bëgg am kaani mënoo ji kaani bëgg am suukar mën na ne boo defee lu baax da ngay am lu baax boo def lu bon ala kulli xaal balaa ngaa dee da ngay am lu bon ndax yàlla moo ko kon nag nañ rafetal ñun ñëpp ñu booloo doon benn parce que ñun ñëpp benn lañ ku lépp lu ñor mooy teral suñuy waajur ak nekk ci li ñu war kon nag jàmbaar dëgg noonu lay doxee kontaan naa kon sa li ngay ñaanal euh, si Siteu sa kàddu bu mujj. waaw ngi koy ñaanal ndam rek barke yàlla ndam ndam ndam ndam bu rëy du ndam naaw parce que dañ koo soxla. merci beaucoup Thiat kontaan nañ ba wér jaajëf gis ngeen nag Siteu moom ñëpp ñoo ko bëgg nit ñi ñu mën a wax ak ñu mënul wax ñëpp ñëw bëgg Siteu tey nag interview bi may def nii kii nii muuma la mais dafa bëgg Siteu Siteu moo dee ci xol bi. Yeah. ah.